Euh, Mame Mactar Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. waa ñu ngi leen di ziar ci néew bi mbooleem auditeur u Rewmi FM mhm, ñuy dalal tey kii di secretaire exécutif bu ONG Jamra ONG Jamra bokk tamit ci collectif euh, wala coalition And Sàmm Jikko Yi euh, tey ngeen lancé pétition justement ndax Jamra bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy signataires yi waaw loolu c'est obligatoire parce que mënoo nekk membre fondateur d'une coalition aussi large que ànd sàmm jikko yi te doo joxe le bon exemple mm. voilà ànd sàmm jikko yi ñu ngi ko sos ci atum 2017 boobu matuñu woon sax fukk léegi mu ngay gën di mm. imam yi ñëw nañu la ligue des imams et des prédicateurs le rassemblement islamique du Sénégal ba ci société civile la euh, la cellule euh, Euh, le comité des intellectuels du Sénégal bu mm-hmm. euh, notre ami l'éminent sociologue euh, Malick Ndiaye mm-hmm. donc mu gi gën di yaatu alors daanaka ñu ngi bëgg a romb juróom fukk léegi alors kon Jamra ci premier signataire yi la bokk alors kon nag pétition bi léegi dañ ko mettre en ligne parce que suñu combat il faut ñu dëppale ko ak jumtuwaay yu xarala ak ak tolluwaayu jamono te fi mu ne nit ñi xër nañ ci lool ñu ngi signé bu baax a baax incha allah. li ngeen bëgg tey muy ñu criminaliser euh, li jëm ci homosexualité ci espace public fii ci Sénégal euh, wax nga ko pétition bi moo ngi avancé euh, normalement tey ñaata signature ngeen soxla. waaw yàlla dafa dogal suñu kuréel bi dañ dafa am ay pàcc. Mhm. maanaam ay ay bànqaas. Mhm. waaw ku ci ne ak la ngay toppatoo. alors am na équipe bu bu xarañ boo xam ne ñoom ñooy toppatoo tout ce qui est nouvelle technologie ak tamit. la visibilité de notre coalition au niveau des réseaux sociaux kon ñooñu ñooy toppatoo loolu. Mhm. xam naa ñoom ñu du ñàkk ñooy gën a mën a tontu ci fu pétition bi toll ñaata la ñu amagum. nan nga nan nga jàngatee évolution euh, pétition bi. a ah, xanaa ak xel mu dal rek. parce que écho yi ma ci am daal mooy xeetu sénégalais bu nekkee ñu signé dañu demee ne woon islamiste yeeg soi-disant organisation islamique yi rek lay concerné waaye daal au-delà des religieux. sénégalais lambda yaa ngi signé éducateurs yi simple père simple mère de famille sëriñu daara yi euh, ah, moom daal bépp sénégalais boo xam ne daal rafetluwuloo lu ñaaw lii ñu bëgg saxal fii ci réew mi yaa yaa ngi signé voilà kon nag euh, mhm, taxawaayu euh, autorité religieuse yi sax ci boobu la pétition ndax war na mën a dooleel li nga xam ne mooy seen xeex bi ah bu baax a baax a baax te dèjà gis nga effet yi euh, naqari na lobby homosexuel yi <laughs> bi ñu yégee ne sëñ Muntaxa xaatim na ko bi ñu yégee ne Serigne euh, Babacar Sy Mansour signé na mhm. bi ñu yégee ne Serigne Ndiassane signé na Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne mhm. ñoom dañu jànnaxe completement dañu sax commencé jafur ndax dégg naa dañuy plainte léegi suñu xalifi mhm. ndax seen plainte yi buñ ko yemale woon comme niñ ko defee woon daaw Euh, octobre ak novembre deux mille vingt mhm. ci sëñ Modou Lo Ngabou jàmbaaru lislaam boobule te jiite saafinatul amaan buñ ko yemaloo tamit ci simple euh, ndongol daara bi di Mame Makhtar Gueye bu Jamra sax ñu mën a wax waaye léegi dañ bëgg dugal ci suñu xalifa yi ma xam ne kon ñii seen gàllaaj toj na moo tax ko yeboo seetaan la rek dinañ mujjë nërmeelu ndax si réew mi ku ko bëgg a toroxal yaay torox rek. fàttali nga ñu ko nee nga Jamra amason ah, na am benn euh, plainte wala sax ay réclamation yi jëm ci collectif gay yi ndax euh, la mu moon amoon na ko. waa loolu mënu ci mënu koo am. Hmm. parce que ñu bari dañuy réeree mbir ne. coalition LGBT boobu ñuy wax ADOS LGBT France. Hmm. Hmm. du dara. amul benn cër ci institution de la République française benn structure de la société civile euh, LGBT la. boo xam ne bii day activisme yooyu voilà moom moo sàkku ci Gérard Darmanin le ministre de l'intérieur mhm. pour que ñu plainte sëñ taxa plainte euh, sëñ Babacar Sy Mansour plainte Jamra plainte Safinatul Aman mhm. voilà donc ñun suñu plainte ñoom ñu ngi ko déposé depuis octobre novembre deux mhm. xam nga octobre ñu bëgg a ñëwaat loo ci dégg dara te doo ci dégg dara itam <laughs> voilà ndax ñoom amuñu benn responsabilité dañ ne ci seen mbon te ku àndul ak ñoom ci mbon gi ñu jog di la di yàq sa der waaye du dem fenn waaw ay cinéma la rek. <coughs> pétition euh, gannaaw loolu marche euh, lan moo ci topp ci lii di plan d'action bi. waaw li ci topp day mooy li euh, tubaab di wax euh, euh, nu mu tuddati sentinelle vigilante waaw ñu jouer un rôle de sentinelle vigilante maa léegi maanaam léegi kuréel yi seq ànd sama jikko yi war ñu mat juróom fukk. alors ku ci nekk nga ubbi say gët di xool eh, pour que lii raam te ñu njort ne ci ñag bi la jëm seen pexe ba a antu ñaareelu vigilance bi mooy fexe rek ba lali pexe xam naa commission bi toppatoo ñu ngi ci pour ñu am député buy porter ce projet ndax ñu mën a criminaliser eh, actes yu ñaaw yooyu mooy mbirum borom ñaari tur voilà kon nag euh, li ngay laaj a ngi noonu kon loolu mooy jéego yi ci topp incha allah le combat continue. justement le combat continue nga wax ko assemblée nationale euh, jéego yu ci topp la euh, tey ji ndax am ngeen yaakaar projet criminalisation homosexualité daal di jàll ci assemblée. xam nga laaj boobu nga laaj daf may fàttali laaj bañ ñu laajoon euh, ci atum 2007 bi Jamra jógee ne drogue bi cocaïne bi héroïne bi marijuana bi mu ngi lëmbalee réew mi. Mhm. di kannasuloo xale yi di tas sëy yi di yàq yàq yokk insécurité bi. Mhm. ak di tilimal suñu économie ndax xaalis bu bon bi ciy recycler il faut ñu criminaliser ko ñu bari dañ doon wax naan eh lii du sotti lobby euh, narcotrafiquant yi ay milliardaires la ñu bari doole ku ne di wax. Mhm. ñun ñu daal di wéeru ci. ndono lu rafet li fi mag ñu baax ñi tëdd Touba ak Tivaouane ak Ndiassane et cetera bàyyi rek. Uh-huh. daal di wéeru ci loolu am confiance song assemblée nationale ba loi ba jàll c' est la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 bi nga xam ne trafic de drogue bi nga xam ne ay 3 mois lañ la daan tëjee 6 mois te fekk dugal nga fi lu tolloog kilo kilos d'héroïne nga xam ne gramme bi rek 80 mille francs la 10 kilos yi di 800 millions ñu daal la dóor ay 3 mois ki 6 mois nga eh, six mois lañ ma tëj eh, tëddërë ba six mois génn jël sama huit cent millions a ah, jar ko moo tax Sénégal dafa mujjoon nekk genre mbalit de de de, de du trafic sous-régional de drogue. Mhm. boo xam ne bii eh, demoon na ba jéggi dayoo. alors ba eh, yàlla dimbali ñu ñu criminaliser te assemblée nationale dëggal ko le trafic de drogue trafic de drogue dootul délit léegi crime la minimum dix ans la assorti d'une amende buy def le triple de la valeur de la drogue saisie. Mhm. voilà kon bi itam ah mënuñu dul rek eh, jël yàlla rek di ko wéttalikoo mm-hmm. de sorte que eh, ñu continuer jéego yi ak pression bi rek ba eh, ànd sàmm jikko yi ak kuréel yi ko seq yëpp daal di am li ñu bëgg incha allah. tey jii ndax da ngeen sentir benn menace bi waral ngeen gën a corser la lutte comme on dit. ndax gis nañ ne yàgg ngeen ci xeex waaye euh, souvent euh, bu événement amee wala mu am benn euh, cas ci la ñuy gën a dégg organisation yi mais tey dafa mel ni da ngeen gën a da ngeen gën a corsé li di xeex bi lan ngeen sentir. waa ñun li tax ñu yokk jéego yi ñun dañu nekk ci réew bu tudd Sénégal te mandarga Sénégal à travers le monde mooy pays de paix de de de dialogue te fii ay nit yu jàmm fi ne. Mhm. nit ki nag doone boroom jàmm rek danaa ko topp di ko ba jékki-jékki mu wan la lu dul jikkoom. Mhm. te borom ñaari tur yi ci tànk yooyu la ñu taxaw. ndax tooñ bi dafa ëpp dafa jéggi dayoo. mënuma lim yëpp waaye dama ci jukki benn wala ñaar rek. Mhm. ci atum quinze ñëpp xam nañ ne chaque vingt cinq décembre suñu mbokku catholique yi dañuy màggal juddug yoon ci Yàlla Insa di Jésus Christ. Mhm. waaye yàlla dogal nag ñoom jullit yi dañu am calendrier buy tourné. boo xam ne euh, événement tabaski yeeg korite gàmmu du nekk toujours même date waaye atum 2015 nag calendrier lunaire bu jullit yi di tourné di tourné ba mawludul nabi tombé moom aussi le vingt cinq décembre mhm. ñu di ci màggal ñun juddu Seydina Mohamed mhm. catholique yi di ci màggal juddu yent mhm. homosexuel yi daal di tànn cette nuit doublement symbolique pour fas fukki sëy ak benn ci suuf su tedd fii nga xam ne fa la Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass tëdd mhm. loolu tooñ la demoon nañu ba at ya ca topp ci deux mille dix neuf fii ci caaray la woon mhm. ay góor jigéen yu jigéen gang de lesbiennes organiser loolu tubaab di wax expédition punitive mhm. maanaam ne nañ dañ di duma as ndaw soo xam ne ci ñoom la bokkoon waaye dafa mujjee dem ba xelam yadda ko mu ne wëlbati wan leen ginnaaw daa di ba ñu jubale ko ak jëkkëram mu dellu ci néegu sëy mhm. ñu ñëw fitnaal ko nekk lu tax nga nekkoon ci ñun ba pare di ñu loolu tooñ la mhm. mënuñoo lim yëpp waaye ba ci gën a ñaaw mois de novembre bërëb bi nga xam ne moo wax ci suratul jinni ne wa anal masajida lillahi nee na jàkk yi néegu yàlla la mhm. alors bëgg ñaaw teef ak mën a ci kaw wasaare ñaaw teef weesuwul nga bàyyi fi hôtel yeeg àll yeeg partout ñëw ba ci néegu yàlla ñaari góor jigéen di fa jëflante waa lii nag état bi di ko seetaan la mu nar a jur euh, dalul xel parce que am na dëkk yoo xam ne laisser-aller bu mel ni moo fa amoon waaye nit ñi ñoo jóg fajal ko seen bopp mu jur des cas dramatique dramatiques loolu ñaanuñu ko senegal moo tax la meilleure solution tooñkat yi il faut ñu yokk daan yi particulièrement ñu criminaliser ko bu ko defee couple góor jigéen bu jógati bëgg a tooñ di nga ne ah léegi day dégg naa fukki at la kon xaaral ñu dellu toog suñu place. tey jii ci ay xibaar yu ñu jot dégg nañ ne euh, ñoo ngi euh, defal formation ay enseignants ay modules euh, ci élèves primaires yi nga xam ne dañ ciy waxtaanee violence de genre en milieu scolaire ban jàngat nga ci def. waaw loolu mooy li Jamra waxoon depuis deux mille dix huit rek ba ñu jëlee copie lettre Audrey Azoulay directrice générale bu UNESCO wasaare ko ci presse bi yëpp. nee leen am na luy raam UNESCO dafa bëgg a dugal ci système éducatif bi benn modil ngóor jigéen pour xale yi dès l'âge de cinq ans ñu tàmm di leen tàggat ba bu ñu demee école euh, élémentaire ñu nangu ci seen xel ak ci seen xol ne ni yàlla bindee góor bind jigéen noonu la amee ay doomu aadama yoo xam ne gisuñu seen bokk ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen mm-hmm. kon nañ leen may ñu assumer loolu tubaab di wax seen orientation sexuelle waaye ba ñu ko waxee en deux mille dix huit ñu ne eh Jamra waxati na ah waaye dañu dem ba deux mille vingt le vingt huit décembre comme que weddi gis bokk ci syndicat yi seen bopp ñoo dar seen gémmiñ yuuxu parce que UNESCO moo leen sali ndekete séminaire bi du woon dara la ñu lajjale woon ca deux mille dix huit fexe ba dugal ko pour jaaree la ko ci syndicat d'enseignants yi parce que xam naa dañuy njort ne bu syndicat yi àndee ci mbir mi rek eh bien dinañ jàpp ñëpp tuur de dem parce que dinañ ne bu bañ doon am kay ñi ñoo war a bañ waaye nangu nañ ko waaye yàlla dogal nag syndicat yi wane mat gu mat gu kawe ak patriotisme bu bu bu rafet rejeté ko foofu nag dañuy def mention spéciale à Damboj ndax moom yemul rek ci rejeté mm-hmm. donte la demul woon ca séminaire ba waaye ba mu ko def daf ko rejeté ba pare daal di wër ci rajo yeeg télé yëpp daal di leen jebaane ñu weeru ci lu ñu koo daw waaye ba ñu dawee man dama leen ne saay-saay du bàyyi de day dellu ginnaaw pour gën a mën a tëb rek loolu moo am tey. kon jàpp nga ne coow la da leen euh, taxoon euh, reculer mais tey dañoo gën a dellu siwaat dañu demoon takkuwaat ba dëgër rek dellu siwaat nañ alors ñu ngi ruumandaat ne ci examen blanc yi particulièrement Rufisque. Mm-hmm. am na fa benn sujet boo xam ne anglais. Mm-hmm. Euh, mbirum borom ñaari tur buy bind. lettre dër mama di ko di ko taafantaloo. Mhm. di expliqué naan waaw lii moo tax ma dugg ceeg nangam ak nangam yooyu yëpp. ñu ngi daganalal ci xelu xale yi. que ngóor jigéen aayul. Mhm. mooy la waxoon rek. c'est toujours la système éducatif de l'UNESCO mooy lal pexe yooyu. waaye nag euh, ci la jële jëm ndax réew mu tedd bu bu Bamba tëdd Maodo tëdd fi Baye Niass Baye Laye. Mhm. ku bëgg a toroxal réew moom yaay torox incha allah. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Mame Mactar Guèye. Très bien waa di leen souhaiter une bonne continuation. Mm-hmm, merci bu am solo bi ngeen def pour jërëjëf moom mooy secrétaire euh, exécutif bu Jamra ko tamit ci euh, coalition And Sàmm Jikko Yi.